Fallou Ndiaye a ngi noonu ànd ak Assane Ndiaye Baye Ndiaye sëñ Fallou Nick Nicolaï ah jamaïcain ci ginnaaw mbokk yi gis ngeen sécurité bi police ak gendarme ñëpp ñëw nañ GIGN ñëpp ñëw nañ réunion bi nga xam si ni moom mooy dernier réglage yi nga xam ne moom la def def Aziz Ndiaye ngi fi Baye a ngi fi Nick Nicolas ngi fi Fallou njaay mu ngi fi en longueur mais début bi dina gaaw mais est que ci si ay secondes lay yem wala est-ce que après tiré en longueur loolu nag si moom loolu des. état physique noonu ñaa pare nañ kenn du bëri final. xam nga tey drapeau dañuy wax ni mais lii tey finalu làmb la. ñu final la en comme bu doon football tey dañ naan euh, la. final nag dafa am ko war a mhm. moo tax ñaari camps yi seen staff am nañ solo si combat ñoom ñaari camps yi. Mhm. seen mooy déterminé pour mhm. gagner combat acca mmh. dèjà rek dama ne lamb bi ma tuddee nii du ma ko moo ko kenn ko ñu association bi tax na ba boo liggéey jàmm incha allah ñoom ñooy sama seen invité na ah sama kër donc ma di woo Samba Demba fa am naa ñu ko mate ñooñu laa woo ñu toog sama kër jëmmal ma ñu ndékkee ndaw bu ñu bëggee añandoo ñu jogandoo noonu ñu fi arrêté mmh. yaakaar naa ne le maximum possible ci association bi dina ñëw mmh. donc loolu nañ ci remercier aussi suñu kilifa suñu mag waaw mën nga nekk président te doo nekk kilifa muy xaaj bi laay ndeel moom mooy suñu grand frère jox ko cër bi li ñuy digal ñuy def li ñu tere ñuy bàyyi ak ñeen ñu ne am dara jëm moo fa grand Mbaye Cissé des anciens yoo xamante ne tey jii li ñu laal seen quatre-vingts ans association la boo xamante ne mën nañu ko fi mag war na am ay quatre-vingts ans yu jege ki fi gën a néew nekk ci ay vingt-sept ans am na sax ay xale yoo xam ne ñu ngi bëri ci làmb te actuellement seen loxo set lool ñu dugal leen suñu biir di leen yokk xel di ànd ak ñoom bu ñu bëree tamit ñaanal leen mm-hmm. waaw donc euh, Euh, ñaari mbër yi <clears throat> dañ leen bëgg a fàttali rek ne bëriwu leen dara du làmb ci ngeen tuddee làmb jeeg ñi àndal dañoo bëri ba bëri jeex dañoo bëri ba bàyyi ñëw toog war leen seetaan si sagal leen sax war doy sëkk rek ci war ñu combat bu neex war ñu yar war ñu teggin ki daan ki daan yëkkati ko ñu kottante dem seen yoon te xam ne dinaa dugg tapaatam làmb day amaat donc euh, conseil bi ñu mën jox dara rek ñu def fulla ak fayda ci li ñuy def war ñu bëri bu leen nangi nag wël bi di wala guddi ba ci taxaw jëm ci suuf wala ko pen cëf ko mën a jóg combat yu mel nii dafa leen nañ boo déggee man ci ko pen cëf mooy ju doomu daanu mën na ci combat bi wël bi di gàll mooy saxabal mën na am mboot na am nooju mën na am bari na xeetu jël yoo xamante ne mën na gën a combat ci suba yi tax ma ko mooy ñaari mbër yi musuñu am combat di tricher fan laa maamal dégg sa bëree combat di tricher amul da koy bëri ba mu jeex mu daan mbaa ñu daan ko loolu noonu kasaalika léegi ne ñaari mbër yi bëree am mbër boo xamante ne mooy jiitu ci làmb moom mag tuuti moo ëpp ay combat dem ba tey titre roi des arènes kon boog dañuy jàpp ne ka dend moom war a ñëw dafa ñëw pour détrôner ko jël ko loolu da moom si am mbër pire day nekk ci digg géew bi di daan di daan di daan ku ne di ko wut daan ba kenn daan ko ñu daan nag ñu xam ne en tout cas daal ñaari mbër yi ay mbër yu valeureux lañu ku ci ne wane nga nga Sénégal loo xamante ne dalal nga xelu nit ñi ba tax tey bis bu mel nii kañ ngeen ko ji dégg coow làmb lu mel nii coow làmb yu mel nii damaa ëppal sax ne boobu cinquante ans yu nekk beneen nga koy dégg xam nga bari na fi nag boo koy lim nag Falaay amoon na ko Falaay Baldé bàyyi ama amoon na ko Alaaj Birane Ndiaye amoon na ko Amoura Sarr Mbaye Guèye Manga du ba lees buñ koy lim duñu mën a ñim lépp ba ci yow ci man nii ba ci moom man daw tasen ba ci Yékini ba ci Bombardier ñoom kay rek ku ci ne am nga bis boo xamante ne mm. bis bu rëy la ci biir àdduna ku nekk nag bis yi nag duñu tolloo waaye bii nag tax mu yéeme te jaaxal doomu aadama yi ñeenti at la ñi ne juróom ñi ne ñeent mais fa gudd deux quatre deux mille dix neuf ba naka ni tey ci benn combat ñett ñaari mbër yooyu tey son nañ promoteur bi tëgg lamb bi tam dee na ndax ay centaine de millions la teg ci benn place ñeenti at jublul puusul demul daa da kii perte peut être ñaari mbër yi tamit préparé nañu benn yoon jub ci combat bu combat bu yàqu ñu war di préparer waat ci ci combat bi ainsi de suite loolu tax ñoom lañ koy jël rek dugal ko seen poche ndogal yàlla seen biir carrière war naa ko toog ñeenti at wala bëri benn mbër mënut a sotti yàlla na ko sottal suba bu sottee nag xëy na mu doon ubbeeku ci ñoom ba tax trois tous les trois mois ñu bëri war na mun nekk donc nag euh, na amateur yi dimbali ñaari mbëri ñu génn ci liñ ne xam nga topp di yuuf Ama Baldé mbaa Modou Lo ba pare Modou Lo xëy na bu xëyee dépassé bi noo ko xaw a wala Ama Baldé déplacement ko xooj. Ah, ah, ah. par hasard ma ñëw fii rek. fekk fi le président. une grande première. ci làmb mooy suñu fiarte di suñu mbégte aussi. parce que en général drapeau euh, un combat royal. ma suñu ko tuddee mbërum làmb. Oh. en général ñu ngi koy tuddee. président ministre député. Mhm. mais tey ñu tuddee ko mbërum làmb. Mhm. kon dañu delloo euh, buum ca mboy boobu. aussi il a mérité quand même. parce que mhm. pour dire vrai. à son temps il a marqué son temps. ci ay combat yoo xam ne def na ko fi def fi jaloore. donc am na loo xam ne boo ko defee da ngay bàyyi sa empreinte. donc lii lu ko dab la mais yeneen a ngi ñëw. parce que il le mérite pour dire vrai il c'est un lutteur. ñu bokk génération mais ñun il le mérite. moo tax tey bi ñu ko tuddee drapeau bi ñun ñëpp a ba tax na sax lii avant première bi la mhm. mais bu subaa di ngeen gis lu kenn mësul gis mhm. bu subaa mhm. non bu subaa xam naa ne comme ni ko xale yi di wàccee rek euh, waxee rek lamb bi dina wàcc soo ba zéro incha allah rabbi ah, mais ñaari mbëri loo ma ci wax ñaari mbëri de li ma si wax moom moom la ñëpp wax rek ah. xam nga bi dafa mel ni sax euh, cette fois ci euh, commentaire wala kii ah. cette fois ci ñu bëri dañoo xaw a réticent mais il faut ñu wax nag. Ah. dañu parce que làmb la amul combat bu jaarul. Mhm. amul combat boo xam ne bëriwuñ ko fii ñun. kon bu ñu waxee nag nañu nga déglu. Mhm. làmb soo bi mhm. kii dafa am sañ-sañ. kii attentif. ki am sañ-sañ. sañ-sañ mooy amaa wax na ko ko. boo gisee si ci ci ci seen ci seen wax ñoom ñaar bataille euh, bataille psychologique yi. Ama nee na ko kii ma gis nii su ma xamoon ne nii la toll kon nu ma jaral 1000 francs Modou Lo ne ko ah man kat combat bi ama samay combat mhm. amateur yi ñoo daan wala supporter ñoo doon taxaw sama combat bi combat bi man maa ko jël sama bopp mhm. kon nga xam ne nag ñu ngi dem si combat boo xam ne mhm. du yomb bu arbitre bi soufflé ama du bàyyi yoonam dañuy wax nii rek pour mais bu arbitre bi soufflé dina jéem a dox si kawam bëreeg moom dox ci kawam bëreeg moom nag lu ne mën na ci am la mu bugg mun na ko am wala mu bañ kaa ñàkk waaw bu waaj bu waaj yi prix daawul la mu bëgg dox ci kawam am li mu bëgg bu prix daanee nag mun na dox si kawam